asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen euh, jaajëfal yéen ñëpp Cheikh Tidiane mi nag li ma booleeg moom mooy maanaam dafa dem ngay da doon gont ci benn jour taseeg moom ci oto mu yóbbaale ko après mu taseeg moom ci oto bi mu yóbbaale ko mu ne ko léegi mu am fu mu doon maye ay bale léegi tey mu ne ko mu ne suñu koñ maa ngi bàyyi ñu xeex ay bale mu ne ko ana léegi xam am nga seen numéro mu ne ko déedéet mu ne ko léegi kon xaamam bind sama seen numéro sama numéro nga jox ko ko après bi ma joxee numéro bi ci laa ko woo si ma bi ma ko wooyee ma jot ko ne ko yow bind ma bindaloon yaa ma jox numéro bi mu ni ma waaw léegi tey ma woo ko mu ni ma léegi dinaa leen seet si su ma ñëwee ñu waxtaan ma am lu ma leen dam ñu am lu ñu seq daal léegi loolu moom ma jotale ak Cheikh Tidiane mi ñun tam ni ñu ni ñu bëgg a doxee mooy maanaam ñun moom ñu ngi nii ànduñoo kenn gu instant bii nii ku ñu jàppale daal ñu jàppale la suñu koñ nag ñun moom danoo bëgg maanaam ku suqali suqali suñu gox soxla leneen lu ku suñu koñ li ñu bëgg mooy maanaam ni suñu koñ suqaliku ñu xam ñun ñun mbootaay gu mag la ñu yor fii ay jigéen lañ te dañoo bëgg a liggéey comme ñëpp léegi nag loolu lañ bëgg ku ñu ci dimbale ku ñu jàppale daal en tout cas ñu jàppale la moom. asalaamaaleykum mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu ci kenn ku nekk turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar bu baax di leen jëfal ci liggéey bu am solo bii nga xamante ni si def ngeen ko te yàlla suñu borom jaarale ko ci Cheikh Tidiane Dièye. suñu nuyo ak suñu siyaar nak ñu ci jital khalifatu am di taifatil muridina asaidul fadila Cheikh Modou Muntaxa di ko ñaanal suñu borom guddalu fana a wéral ba lim naan liggéey suñ touba lepp suñu borom defal ko ko lu kawé njortam di ñaanal kep ko xam yaangi dégg ndax yaakaana li lu am solo la te Cheikh Tidiane mi ngeen andat am ak tiofel ci yeen ak fonk gum len fonk tax na lii ci jëm boppam mu jël ko am fu mu ko teg ndax yaakaar naa bisu tey bii di àjjuma nga organiser ci lu mel ni yaakaar naa yombut ndax kenn ku na xam ne Touba liñ baaxoo muy ay daayira yooyu moo tax Cheikh Tidiane dagg yitteem yëpp lépp lu jàpp mu ne dama koy bàyyi ñëw ànd ak yéen soxna yi kon ngeen xam ne Cheikh Tidiane fonk na leen lool fonk gim leen fonk nag tax na mu xool ne yéen ñi bokk ngeen ci ñiy taaral dëkkub Serigne Touba bii bokk ngeen ci ñi nga xam yéen liggéey sëñ tubaa ci dëkk bii nii ndax kenn ku ne xam ne ne alxames yéen jigéen ñi ñëpp da ngeen dagg seen yitte dagg seen nelaw dagg seen lépp jël seen temps di ko def ci mbedd mi di ko bale te dëkku Sëriñ Tuubaa boo fa seetalee lu tuuti rek lu tuuti rek suñu borom dala koy fay moo tax Seex Tijaan xam ne li ngeen bëgg muy liggéey Sëriñ Tuubaa ci dëkkam bii ci boppam am na ci wàll am na ci cër xeyna na mu ngi jaxaso ak état di and ak mom mu ne naa xool li ngeen gëna bëgg moy ay way yi nga xam mom ngeen nettoyé dëkk bi Cheikh Tidiane jënd ko yëkëti ko fas leen ko may ci xol bu sedd assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu euh, mbokki Ngiraneen man na wax ni mbokki Kër Ñang ndax fi ñu sori soriwul Kër Ñang daanaka man nga wax moy Kër Ñang nuyoo boobu nag maa ngi koy jël di ko teg ci loxool ku ñuy wax soxna Sooda Jaw fii ci Touba Ngiraneen ak soxna Nogoy Jóob mu tegal ma ko ci mbooleem suñu yaay yii fi toog yëpp di leen nuyu di leen ziyaare di am mbégte ci seen taxawaay ak mobilisation bii ngeen def man nag sama kàddu xam naa du ci bëri ndax lépp kàddu yi mbégte lay doon comme ni ko sama frère Serigne Diop waxee léegi rek soxna Soda Diaw li ñu boole dafa nekk loo xam ne nii euh, lu am solo la ndax comme ni ñuy yëngutoo fii fee ñu dëkk ci Kër Ñang ci jigéen ña fa nekk ñu di leen jàppale ci wàllu lu jëm ci ay set setal di leen may ay bale di leen may ay uniforme mooy déguisement yi ñuy sol di mën a def ay set setal loolu moo ñu boole woon mu ni ñun de ña ngi koy def fee waaye amaguñu kenn ku ñu ci jàppale bañ ca waxtaanee nag ci laa ni ko dinaa ñëw seet si leen la ma am dinaa yëkkati teg ko ci seen loxo ñu tàmbalee ci loolu nag moo ñu indiwoon woon fii tey ci Ngiraaneen moo taxoon ñu jël bale yi donte bariwut teg ko ci seen loxo pour bëgg ngeen liggéey ñu mën a jëm ci kanam fii nag Touba boo xoolee jigéen ñi wax dëgg yàlla sonn nañ coono boo xam ne nii su fekkee jàppale wuñ leen leen gëstu wuñ leen dana metti ndax jigéen ñi ñooy dolli dépense yi jigéen ñi ñooy jënd saabu jigéen ñi ñooy dolli mburu jigéen ñi ñooy xottil seen doom jigéen ñi ñooy fay ñaw mboolem lu nekk ci kër gi rek yaakaar naa jigéen moo ko def loolu kon su amee ñu gis ngeen doon ay jigéen di yeewu quatre heures du matin dama naan sax Touba ndax jigéen ñi danañ nelaw man bu may oreelu di dem Dakar wala ngay teel a génn da ngay gis ni jigéen ñi daanaka duñ nelaw ña nga ca marché ya ña ngay def lu nekk rek di jéem a yaxantu léegi nag loolu il faut ñu dimbali leen ci xëy na am na programme bu amoon nga xam ni booba fekk na xamanteeguñ ak yéen muy délégation de l'entrepreneuriat rapide ñu koy wax DER muy ay financement yoo xam ni ñi ngi ko doon defal jigéen ñi nga xam dañ leen di jàppale financer leen ñuy fay ndànk-ndànk di liggéeyaat pour mën a am autonomie pour mën a am kees